sama genre yi sama carte d'identité ci la bokk ñu ngi téye ay carte d'identité fii dans la diaspora woo naa nag naka ma du ma wax nit ki ci suuf damay toog ci kaw wax la ko woo naa consul bi di monsieur Amadou Diallo di le consul général du de de woo naa ko woowaat ko ma woo ko expliqué ko cas bi ne ko ni dafa am ñi déposé woon seen carte d'identité voté yaa ngi nii di waaj a jot ñu confisqué seen carte yi téye leen man sama récépissé bi ki ma ko bàyyeen au niveau de Paris kere bi mu bi bi bi ba mu jotee laa ko ne demal au niveau de consul général nga dem retiré sama carte d'identité mu dem mu egg foofu ñu ne ko carte d'identité a leen nag comme ku ñëw pour retirer carte da ngay joxe récépissé pour ñu mun laa jox carte d'identité ma ne leen nag ma génneel le déposé pour le retrait de ma carte d'identité leen bu baax consul ne ma maa ngi ñëw mu dem depuis boobu su ma ko woowee du nangoo jël la dernière fois ma ne ko tant que loolu nga mën a indi pour man ma mën a gëm ni que ni am na ku jël sama carte d'identité sama ginnaaw parce que récépissé original bi ngeen ma jox keroog dans le ci dépôt de carte d'identité bi ma ko déposé ma a ko récépissé boobu moom laa jël ma ma photo ko ba pare ma jël original bi bàyyil ko nit ki parce que da ngeen ne ne que noonu laa jëlee original bi jox ko sama nit nit ki téye original bi suur bi jot ma xool ci date bi ma ne ko tey la date bi on la le mois de février temps février ma ne ko dawal nga dem consul nga dem nga dem jëlal ma sama carte d'identité mu dem mu egg foofu mu mu génnee sama récépissé bi jox leen ko bi mu leen ko joxee la ñu xool ci seen système bi ñu ne la la carte d'identité a été retirée par kii borom ci biir ambassade bi la taxaw mu wooma mu ne ma faa maa ngi nii mu def vidéo appel call vidéo call mu ne ma gis nga ba ma ne ko waaw mu a ma si biir laa jóge nii ma ne ko amul kenn koo ma mun a paas ci biir pour ma mun a xam mu ne ma noonoo mu dem mu ne ma xaaral xaaral ma delluwaat ma xool da dinaa mën a kii mu demaat encore ci biir mu bëgg maa paas waa ji waa ji nee na dafa jàpp mënul jël téléphone portable mënul jël appel surtout appel vidéo mu ne ko borom carte d'identité bi nga xamante ne moo ma yebal moo moo nekk en te moom nee na yebewul fi yebalul fi kenn pour mu ñëw retirer carte d'identité léegi nee na bëgg na am preuve pour nga jox jox ma preuve pour ma yóbbul ko ko ma woon ko preuve bi di que ni am na ko jaar ci ginnaawam ñoo jël carte d'identité nationale am sénégalais. waa ji ne ko neen en tout cas dans système système bi bu ñu am nii le système de retrait des pièces d'identité wane na ne que ni am na sa carte d'identité bi nekkatu ci système bi a été retrait c'est marqué retrait sénégalais ma leen di wax ni c'est te ndekete du man kese kooku noonu fi mu taxawoon noonu gis na ni que ni y a des centaines de centaines de de sénégalais yoo xamante ne ñu ñëwoon jour boobu pour ñi ñu ñëwoon pour ñoo retirer seen carte d'identité ils ont ils ont tapé de même façon que la personne que j'ai mandatée pour aller récupérer ma carte d'identité te naa ko consul ma ne ko man lu may bëgg nit lu may ànd ak nit yëpp lu may am respect ci doomi aadama am na yoo xamante ne maa ko moomal sama bopp. yow yaa nekk foofu yaa représenté sénégalais yow yaa géré l' administration sénégalaise yi munoo ñëw nga déposé sa carte boo identité pare ñu jox la récépissé nga jël sa récépissé bi defal sa procuration jox ko nit boole ko ak récépissé bi ne ko ne tel jour nag ma dem retirer sama carte d' borom ñoo egg si ñu ne ko carte bi la la carte d' identité a été retirée par une tierce personne loolu c' est un acte qui est grave qui sont ces gens là qui ont retiré waaji ne ma dinaa def sama enquête ci biir enquête boobu la ñuy dem ñu trouvé que ni nos cartes d'identité ont été bloquées pour des x y raison raison yoo xamante ne que ne man personne n'est en mesure de me le dire le consul bi nga xamante ne que moo nekkoon sama xarit te dama koy wootaa yi nekkul di jël koo xamante ne danga ko daan nay kër bu gisee si sa appel manqué moom moo lay rappelé mais depuis deux semaines y a pas de le joindre tu appelles ça sonne dans le vide y a pas duñ lay rappeler te envoie des message nga gis ne que ne tes messages moo xam vocaux yi la moo xam écrit yi la on te répond pas donc man j'ai dit que ne y a un Guy Sourros y a un gis ngeen carte d'identité yi ngeen nekk di confisquer nii di leen téye yéen a xam ci kaw ban affaire ngeen ko teg ci kaw lan ngeen ko teg mais du xolal du tere ñun fi ñu toog nii dinañ continuer toog parce que damaa bàyyi yaay bu am 94 ans qui est en mesure d' aller voter te dina dem voter j'ai des frères et sœurs qui peuvent aller voter j'ai des cousins et cousines qui donc man sama combat dama kaa gagné ndax te sama biir kër laa njëkk a toog ma massifier tout le monde massifier sama dëkkandoo massifier sama quartier massifier sama département massifier soo ko dugg sama région jóge ci région bi lawal ko ci 14 régions yi tey boo am ku koy laam-laamee. déggu leen ma de sénégalais képp koo xamante ni que ne da ngaa déposé sa carte d'identité dem leen retiré seen carte bu ñu leen ko bañee jox wala ñu ne leen am na ku ko retiré seen place affaire yooyu faites du bruit man moom dama leen bàyyee noonu dinaa leen je vais les harceler carte d'identité bi c'était pas dans le besoin des cartes d'identité sénégalais ndaxte 2019 carte d'identité bu Abdoulaye Wade bi laa yoroon boobu fekk date bi périmé woo bu heure vote yi jotee bu ñu demee dañu nee ne que bu ñu déposé ci jamono boobu pour mun a changer carte d'identité bi dina dina jël temps te vote yi dina jàll te du ñu mun a voter si la ñu nee ni que ne vous allez après boo bu vote yi jàllee ngeen dem déposer seen carte d'identité ñu jox ñu papier buy accompagner suñu carte yi pour ñu yoroon carte d'identité yi yàgg yi xam ngeen ni ma leen di wax bu dee vous étiez ici en Europe këyit boobu ngay jël boole ak sa carte d'identité bi. Aïssatou Diatta merci beaucoup ñi ngi saboté direct bi bàyyi leen foofu ñu saboté direct bi. ils n'ont qu'à loolu fragué ma. Kaama neel sa consul yi sa ambassadeurs yi nekk dans les différentes consulats yi carte d'identité yi nga xamante ne que dañoo déposé seen carte d'identité nañ leen bàyyi ñu dem voter on le droit d'aller voter. carte d'identité bi yeneen ne woon carte d'identité bi bu génnee commission de de de vote bi dañuy ñëw ñi nga amante ni que dañoo am droit de vote dañ leen di jàppale te loolu yëpp mi mag yi ngeen mettre am place la dama ne de loola nit ñi seen carte d'identité yi dañu mun a dem vote ji ma laaj waa ji ma ne ko laaj leen duplicata ñoom di génnee ay duplicata ma gis ni que man sama duplicata sama sama kii bi dañu dem def foofu ay profession sans profession koo xamante ne que ne laaj boo demee di déposer sa carte duñu la laaj te da ngay liggéey wala da ngay nekkoon di liggéey quand tu vas déposer ta carte d'identité tu ne demandes même pas si tu si tu si tu exerces un métier ou pas ñàkk de compétence bi nekk ci ñoom je me suis de ça xool ma xool bu baax biñ ma génnalee duplicata bi laa gis bàyyi leen nii ñi jox leen nii ñi seen carte d'identité yi pour ñu mën a dem voté ji monsieur le consul yaa ngay dëgg bu baax a baax a baax a baax a baax nee naa la bu may su may laay dinaa ko wax tous les cartes d'identité qui ont été confisquées au niveau de consul bi ma ñëwee ci yow au mois d'octobre da ngeen maa won tous les armoires les contenus des des des les armoires là contenant tous les cartes d'identité nationale des sénégalais des uns et des autres ñi nekk fii dans la diaspora ne ma nekk de comme yow da ngay daal te lanceur lanceur d' alerte neen yi nga xamante dañoo déposé woon seen carte d' fii te ñu nekkoon fii dans la diaspora nañuy def seen kent lay kattan ñoo récupérer seen carte d' yi parce que on en a trop de stock de carte d' identité non réclamé te bu continuer bu yàggee on sera on est d' identité la pour les nouveaux naka man maa ko gisal sama bopp ma ne loolu moom san gâchis bu ma soobee yàlla bu may laaj dinaa ci wax léegi nag man je ne veux pas faire partie de ces sénégalais là ñoo xamante ne dañ dem déposer seen carte d'identité yi ba pare ñu toog dem ñoo dem jëli seen carte dafa amoon date de dépôt mu am date de retrait date de retrait bi mu jotee damaa yóbbante nit jox ko sama procuration nekkoon yi mi ngi nii sama filiation yaa ngi nii lii man la lii mooy sama récépissé boolem ñaari filiation yi nga yóbbu nga dem defaral ma sama retrait de passeport sama sama retrait de carte d'identité nationale man moom laa soxla borom dem ñu ne ko ma carte d'identité a été retirée par qui par qui te ki yore sama récépissé bi kooku ngi récépissé bi ba tey ba suba qui parti à ama à la man foofu la point d'interrogation bi foofu la nekk te xam naa ne mu mel nii fii France noonu la mel un peu partout faites du bruit yan mi ngeen xamante ne da ngeen déposé tey élection yaa ngi nii jot na ñu bañ leen loo seen carte bëgg leen téye ak xañloo seen ak ak seen yelleef pour ngeen bañ a dem voté ji teguñu ko ci yoon amuñu droit def ko